pour natt d'abord li jëm ci crédit hôtelier te ngeen xam ne lu mat fukk ak juróomi milliards le président Macky Sall dugal ci tourisme ma xam mu bëggoon xam natt natt ko fii ci Ziguinchor est-ce que ñëpp jot nañ ci ñu ngi sant yàlla ndox gis nañu acteurs yi nga xam ne daje na ak ñoom démb yëpp muy ñu nekk ci artisanat di yëngatu ci wellu ci tourisme ñi nekk Cap Skirring muy acteurs ya nga xam ne ñooy ay guide touristique mooy borom hôtel yi mooy borom agence de voyage mooy même transporteur touristique ku ci nekk gis naa rapport bi mu defal ne ak ñoom li ma leen laaj ne jot nañu ci crédit hôtelier te looloo tax tey ñu nekk ci moment boo xam ne mën nañu tàmbaliwaat seen liggéey ndax xam ngeen mbas mi dafa amoon ñaari gàllankoor yoo xam ne il fallait que ñu yëkkati ko. bi ci njëkkoon mooy waroon nañu fexe ba suñu entreprise yi nga xam ne mooy entreprise touristique ñu bañ a loru ba ñu mën a taxawaat ñaareel bi mooy ña liggéey ñu fexe ba ñoom tamit ñu mën a euh, téye seen liggéey ñu bañ ko ñàkk loolu waraloon le président Macky Sall indi euh, crédit hôtelier donc ñu ngi sant yàlla ci gannaaw bi ñu mayee ñu mën a nekk tey fii taxaw ànd ak suñu ay acteurs touristiques ne ñu ngi tàmbaliwaat bamtuwaat di fàttali sama bopp Sénégal lii nga xam ne mooy suñu secteur touristique ku nekk béy ci sawaar ba suñu secteur touristique mu gën a am doole ndax boo seetloo tey ci àddina bi ñu nekk réew mu nekk da ngay gànnaayi sa bopp pour que say touriste toog sa biir réew pour que alal bu ñu waroon yóbbu bitim réew ñu denc ko seen biir réew kon waa Sénégal maa ngi leen di ñaan ña doon yóbbu ay colonies de yeneen réew ah ñu ñaan leen ñoo jàppale suñu secteur touristique li may daanele mooy euh, sànq gouverneur euh, bu Ziguinchor ak euh, préfet bu Oussouye dañ ma wax ne waxtaan nañu ak acteurs yi maanaam ñi am kër yi nekk jotu plage bi ànd ak population yi ak maireu Jembereng ak ñi ko wër nee nañ ma am nañu xaatim nañu benn juboo pour ñu am juróom-ñetti buntu yoo xam ne mën nañ ko ubbi pour que ndaw ñi surtout ñu mën a jot ci plage yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Cap Skirring loolu maa ngi koy rafetlu di ndokkeel bu baax baax le de Ziguinchor ak ay njabootam yëpp di wax ne jox naa dogal immédiatement directeur général bu ko ak euh, kuréel yi nga xam ne moom laa yilif pour que fan yii di ñëw ñëw fii ci Cap Skirring pour que ñu mën a indi engins yi mu ñu mën a ubbi loolu ba xale yi nga xam ne ñoo nekk dans la zone de Cap Skirring ñu mën a jëfandikoo loolu plage ndax bi mu fi ñëwee daaw dafa nekkoon tawat boo xam ne xale yi waxoon nañ ko Euh, monsieur le gouverneur incha allah dinañ gën a taxaw pour que liggéey bi tàmbale nee naa leen ak fukki fan ak juróom ci weeru septembre bëgg naa liggéey boobu wax dëgg yàlla ñu avance bu baax monsieur le maire de Diembéring ak ñaasam des services ñu mën ko def ba sunu askan yi sunu jeunesse bi mën na jot ci loolu te it même ci wàllu kaaraange